jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñu am mbégte émission autour du micro euh, fas yéene nag euh, dalal kenn du gan ci ci Dakar Matin

nan nga jangate événement yi xew Macky Sall daan na wax ne lu fi xewoon dootul fi xewat mi def naa yi mujj am mo gën a jéggi dayoo sax yo xewon mars 2021 hmm vingt nga ko jangate ah dama japp ne que Macky amna euh, sondage de rue lu tubaab di wax sondage de rue xam nga sondage dafa am ci façon bo xam da ngay fay ñi dem di laaj ay nit ay mm. portion de nit manam sur la quantité et sur la qualité mais bi sondage la boo xamantene c'est de fait sondage yu tali la te xale yi wane nañ ko noo xamantene kenn rafetlu ko ah. et à propos sax maa ngi jaale ñi si perte seen ah, mm-hmm. seen seen seen yi si perte ay ay doom at ay gune di tamit ñi nga dañ parce que aussi li am ni ñun ñëpp kenn ko ah bon man alerter na ci analyser na ci euh, prévenir na ci mais je pense que finalement amna na moo tax temps dama nopi won parce que xam nga so waxe dara di ci art bu mu am da ngay tok observer pour nga meuna xam tamit après lo meuna waxat mhm. donc meun nañu waxtane ci causalité et tout mais li am lu ñëk am solo moy que je pense que Macky Sall amna na benn sondage euh, bien imagé. bu koy wan ne ko carrément que euh, muy troisième mandat wala muy gën fi yag tamit après mandat bi jeex defe lo loolu tamit mënatul nek ci dëkk bi mais nous ngi wax violence au mais est-ce que la violence ce n'est pas une réponse à une violence institutionnelle Si nous avons jàpp xale yi di en toute impunité est-ce que du mot moo indi violence que nous constatons aussi chez la jeunesse wa xam nga Sénégal dafa tëddee noo xamante ne il faut ñu def benn genèse si dëkk bi en fait xam man je suis un anti-système. Mhm. te man su may jiin affaire yi du ma ko jiin personnellement Macky Sall mais dama koy jiin système bi en fait quoi. Sénégal Senghor moo fi njëkk nekk président euh, faluñu ko certes mais moom moo fi nekkoon président dafa dem bàyyi ñu at lu ñuy wax maanaam crise d'identité. Mhm. maanaam Senghor dafa ñëw bëggloo ñu tubaab bi bëggloo ñu làkkum nasaraan bi ñun ñu dem ba jàpp ne ñun suñu biir amuñu nu ñu war a xoolee suñu biir lu dul ku gën a tubaabe moo fi gën a war a mën a am benn image Abdou Diouf ñëw bàyyil ñu maanaam lu ñuy wax maanaam crise euh, euh, fracture sociale intellectuelle maanaam dëkk la boo xamante ne képp ku am diplôme képp ku am maanaam benn taxawaay bu intellectuel yow yaa mën a jiite yaa mën a avancé moo waral seen temps y avait une minorité d' intellectuels bu doon diriger une majorité boo xam ne c' est pas une intellectuel. Hmm. Ablaye di ñëw bàyyil ñu maanaam benn fracture sociale matérielle maanaam gëmloo ñu ne oto bu rafet kër bu rafet géwéli di la dar am alal moo lay nu tuddati moo lay def maanaam sénégalais mooy def kilifa Macky dafa nar a dem bàyyi ñoog avec une fracture sociale armée parce que dafa am lu bees loo xam dafa am maanaam ñu dem ba benn instant une frange de la société am arme di ko xeexee ci wetu police ak ci wetu gendarme. milice milice te loolu dafa graaw parce que euh, li tax mu gën a graaw yow da nga war a faj li nga xam ne mooy pauvreté bi nga xam ne instant mi ngi ci précarité ci dëkk bi mais pare woo ci maanaam ñu dem ba benn instant boo xam ne léegi arme dugg ci biir société bi dugg ci biir société sénégalaise ça veut dire quoi ça veut dire que d'ici peut-être six mois d'ici un an les futurs prochains crimes yu ñu nar a am ci Sénégal ça va être à balles réelles te loolu dafa grave hmm. nekk lu ñuy en fait dafa am benn gravité boo xamante ne xaw ma nag ñit ñi natt nañ ko en fait te dafa grave xam nga bu njëkkoon par exemple da ngay xool lu mel ni États-Unis à New York dans le Bronx. ñu mhm. Bronx ay tubaab ñoo fa dëkkoon mais ba fa noir yi commencé dugg lan lañ def jël maanaam noir yi leen séddaloo ci drogue bi pour ñu yàqu pour ñu mën a maanaam génn foofu. Mhm. fin bi mënul nekk ñu jox leen ay armes yoo xam ne amul benn kayit ñi de seen biir. Mhm. te heure bi nii su état demee ba seetaan ay armes di circuler ci biir citoyens yi di circuler ci biir banlieue di circuler ñoo xam maanaam amuñu benn droit amuñu benn formation pour téye ko loolu c'est c'est grave. voilà maintenant nag police génn na xëj na que ñi ko ñu yor nervi dañoo am gàllaaju kàkkatar maanaam xam nga gàllaaju kàkkatar. <laughs> non loolu moom moom laa la bëgg mooy maanaam yow soo taxawee fenn. Hmm. soo ko taxee taxaw fenn ñi fa nekk ñoom ngay ndural daal maanaam duñ la mën a ràññee si leneen nu dul ñoom. mais loolu. léegi parce que parce que parce que parce que dañoo weddi ne ay nervi la yow nga communiquer ci loo xam ne maanaam cible bi mooy population bi te vidéo bi ngay communiquer ci cible bi la jugee.

ñu ngi koy wax xëj na yoruñu déteniruñu loolu mais yow da nga ñëw yor loo xam ne nit ñi détenir nañu ko ba pare nga bëgg leen gëm loolu au contraire de ça loolu mënul nekk. te lu si ñaaw mooy suñu suñu dara si yàqu man damay xool ba Sénégal gagné. oui euh, en dérision la ñu. France 24 ba Sénégal Sénégal gagné Coupe d' man dama amoon ay félicitations yu bëri si samay xarit yoo xam ne c' est des étrangers et tout partout au monde mais c'est les mêmes personnes qui ont yónnee les vidéos là le fait que Sénégal am ay manifestations kon Macky Sall c'est grave. la mais qui grave, grave, c'est que des hommes soient armés de M16 et tout nga taxaw si côté ay hommes de tenue après ils tirer ci population C'est ce qui est grave si ñoom. Mm-hmm. Et loolu defe Macky Sall sait na que image boobu noonu maanaam de yak boppam ci ci ci bitim réew parce que fait tout. mais et puis euh, pour gëmloo nit ñi force occulte ak ay nervi te ñu gis un lieu de départ. gis xam nga oto dafa rëy ba mënoo koo nëbb ñu gis euh, oto yi di dépare siège yu APR fi mu nekk nii sax mu ngi ko dugal ci biir terminusu Dakar dem dikk. ba pare oto yoo xam ne amul plaque. amul plaque. bon xam nga loolu aussi euh, man je me dis juste que. dañu euh, mu niroog oto yu ñu réceptionné woon palais. waaw no parce que yooyu yëpp booy génne nañ ko. fii fii lu fi fii fii en fait dara beesu fi xam nga lu am. Mhm. maanaam lu dafa gën a garaaw rek moo fi am. Mhm.

muy muy Côte d'Ivoire dañoo génn ci guerre yoo xam ne dañ koo tay dañ koo dañ ko ragal ba pare tayal ci delluwaat moo tax c'était facile pour seen président yi gën fa durer moo tax moo moo yombalal Alassane Ouattara am beneen euh, mandat boo xam ne koon am hmm. mais c'est pas le cas du Sénégal ñun yàlla suturaal nañu mosuñu am guerre mosuñu xam guerre et tout lenn kese mooy nduru guerre si ñun mooy ñu dénk benn président suñu mandat suñu yëf mu bañ ñu koo jox nu ñu ko ko joxee hmm. loolu kese mooy suñu guerre Sénégal je pense que Macky Sall heure bi nii li am yëpp war am benn conscience boo xam ne a fi dara et loolu lu ci la bonne nouvelle mooy dafa fekk mu jeexal xam nga lii bu fekkoon sax dafa fekkoon premier mandat kese la mais deuxième mandat moom nga waat moom nga diggee moom lañ la dénk suñu rek. mais nee na nee da koy ci non mënuñ ko ko laaj ci njëkk xam nga xam nga dama waxoon ne Macky mooy genre xale yooyu nga xam ne soo leen joxee fooykaay. Mhm. duñ la ko dañ la koy bañ

parce que dañuy dégg ne ay oui la république doit être debout la république doit ne pas faillir doit pas être faible république qu'est-ce la mooy maanaam pal boo xam ne doon na ko sa papa pal boo xam ne doon ko si sa frère doon ko ci say rak, doon ko say mam mhm. loolu kese mooy république parce que buñu ko nguur mo amone. nguur moy li baye di dem baye fi taw. Taw dem baye fi benen taw moy lolu. Mhm. mais république moy manam pal la bo xam ne yow doon ko kenn askan bi ñoo dajalo tan la si ñepp jox république mo waral sur les dossiers manam vitaux stratégiques et névralgiques sa rak waru cee feñ république mo waral sa beau-frère waru sax am poste ministre république mo waral sa jabar sax warul feñ manam sur les décisions étatiques. république mo waral manam say waru ñu dem bay feñ bañu leni jinn ay yenn manam euh, yenn ñoy recruter ay nervi voilà Ça il faut légui république bobu nonu ñu ne ñom dafa dafa nara ñu ko yàlla dénk jamono bi muy Macky Sall at euh, ñu mu àndal ñoom ñoo ko njëkk affaiblir te affaiblir non ci naka mooy maanaam li fës xam nga li fës mooy da ngay xool par exemple euh, Macky Sall nu muy doxalee même buur du woon doxalee xam nga bu njëkkoon géwél exemple quoi xasuma géwél yi mais ah, géwél kese bu njëkkoon ci buur la gënoon jekk mhm. mais da ngay xool léegi géwél ci président la gën a jekk Sénégal Sénégal da ngay xool dañuy woote ne la ñëwal ñu def vaccination contre le euh, coronavirus -hmm. ñu woo ay tëggkatu sabar ay géwél taxaw di dar président parce que war a ñëw maanaam pikiru loolu du république foo xam ne da nga war a yow sa askan dañoo tiit jaaxle war nga war leen taxawaay taxawaayu kaaraange nga jënd ay milliards ay vaccin ñëw tegal leen ko nga war a ñëw def ko dem ñibbi mais nga ñëw fa teg fa ay géwél pour lan pour rek maanaam politiser loolu du yoon Sénégal dafa loo xam ne dañ ko war a jël. jox ko gëddam jox ko luy sérieux ak sa géwél di réguler assemblée nationale. no sa loolu sax sori na sa géwel jàngul jàngaatul mais heure bi nii képp ku bëgg liggéey moom lay jox CV pour am liggéey. ñuy jël këram huit cent cinquante millions ak cinq cent cinquante millions dara du xew. xam nga loolu du image bu baax ci Macky Sall Macky Sall ba muy nekk directeur di nekk ministre kenn gisul géwel ci moom. donc mënul dem ba nekk président benn géwél ñëw maanaam accaparé ba nga xam ne lu géwél mën a wax ci micro ñu ne ah kon de lii war a xalaat. mais dañu wax sax ne moom moo wax waa ARTP ñu couper signal wal waaw non xam nga. am na am na décision yu bëri yoo xam ne mi ngi am ci Sénégal man xam naa ne Macky Sall yëgu ko talu ko défendre ma Macky Sall. Mhm. mais je sais que abus auto abus d'autorité dafa am maanaam ñoo xam dañu toog nekk ministre nekk directeur jël seen téléphone di commander ay ñenn ñoo xam dañu xaw am seen complexe ñu exécuter te fekk sax Macky sax yëgul et et, et j'en profite aussi pour ñaawlu arrestation yu am ci dëkk bi bëri na et aussi c'est inutile et inopportune. sérieusement pourquoi. non dans la mesure où yow ñu ngay jàpp ñu si bëri xëj na sax say waajur ñoom ñoo la fal xale yi. xale yi ñu jàpp yëpp am na ñoo xam ne Macky Sall lañ votel 2012 am na ñoo xam ne Macky Sall lañ votel 2000 2019. donc yow te ñooñu mënoo prouver ne dañoo nekk ci ay manifestations ñu si bëri c'est vrai c'est des manifestants mais amna na xamné manam ont fait dañoo jugee qui liggéey dañ doon seen magasin pour daw ñibi dañ doon djéggi des di xaar nga leen donc amul amul sens. mais est-ce que mën nga comprendre Sénégal en 2023, post def ci page Facebook dougal la kasso Oui, ah, mais lolu du xam nga. Euh, mais lan moo war indi lolu non lu ko indi moy arrogance insolence djel accaparer les les institutions du ko doré gorni pour man panique kese la panique moy def lolu quoi xam nga aussi euh, so so soo takkee collier en diamant. Mhm. manam so génnee ci biti sa xel du dal da ngay njott ne képp ku la seen dina xam li diamant la mën na ko këf ñoom fa lañ toll instant bi ni mais wax ji moy lijjanti ko yomna te Macky Sall il faut ñu dimbali ko pour mu fexé xol nan la mëna délowé manam maanaam lu ko sénégalais jox ci jamm c'est-à-dire hmm. ñun ci naka lañ ko mëna a dimbali. non dimbali ko mooy juste que mom mu am ñu rappelé ko manam limu mu ben ñu rappelé ko li nga xamné non lañ ko joxé nguur bi parce que nuñ ko joxé nguur bi mom loolu la nekk loolu la nek di def. mais est-ce que mas naa diggee lu mu respecté. bon loolu mom xamna né ah non dama lay non dama lay poser question non je suis non je suis d'accord. est-ce que mas naa diggee lenn lo xam nga né bi

te Macky Sall ñëpp xam nañ ne dafa bëgg réseaux sociaux moo tax mu mu ciy mer ndax la ko ci boy di kaañoo mais loolu yëpp président gis ko mënul nekk à son insu. non gaw ma loolu man. non su ma nee à son insu mooy yenn arrestation yi lay wax yenn arrestation yi nga xam ne je ne dis pas que c'est ciblé mais c'est des arrestations d'humeur arrestation d'humeur la ngay toog nit ñu ñëw fëgg sa kër toj sa buntu kër rajaxe la jël génn yóbbu la comme si da nga rey etu affaire noonu c'est-à-dire ñoom dañu am ben plan de trois dossiers contre Sonko fu mu nekk mhm. premier plan bi mom moy bu Mame Mbaye bi manam le rendre inéligible. Mhm. deuxième plan bi manam moy bu Adji Sarr le condamner et l'enfermer parce que xam nañ Sonko même soo rendre inéligible ëllëg le mu mënti andal euh, num mu ci euh, élection mom la yàlla gars jital troisième plan mooy manam euh, sen dossier terroriste bob non manam pour tas. manam Pastef te loolu. Euh, sénégalais yépp dañ ci jàng ne lépp politique la te loolu moo dommage en fait te effectivement lépp politique la parce que Sonko lenn kese mooy catam mooy que sénégalais dañ ko bëgg wóolu ko jiital ko Macky Sall ba mu gisee loolu taxawaayam lenn kese la woon maanaam mooy jàppee Sonko comme un conseiller parce que opposant c'est le conseiller que tu ne payes pas c'est le conseiller que tu n'orientes pas mais da ngay xool chaque fois fu mu lay attaquer nga dem daw yi xool li nga fa mën a régler ak li nga mën a rafetal léegi nag pour loolu il faut ñu expliquer maanaam état nan lay doxee xam nga état muy bu Sénégal muy bu France muy bu États-Unis état boo gis ci monde bi à 70% dix pour cent maanaam fen lay doxee état. fen lay doxee fen lay doxee maintenant nag xam la mooy différence bi ak suñu bos la différence mooy que état yi ñu jàppee modèle ñoom su fen bi rëccee ba daw ci askan bi askan bi jot ci dañuy sanctionné dañuy jël seen responsabilité sanctionné même bu dee dafa fekk benn directeur wala benn ministre dina démissionné même bu sax dafa fekk sax benn général d'armée

Macky Urbini, heure bi constat bu mu war a def te defe na ay renseignements généraux wax nañ ko ko soy xol ñom dañuy tok ba tuddu âge xalé yi nga xam ne ñoom manifester nee nañ ñi 12 ans 14 ans 16 ans kon ça veut dire quoi ça veut dire que Macky Sall ñu koy xeex nii di ko sànni di ci mbéd bi di tal pënë ci mbéd bi mom ba muy fallu en 2012 ñoo ñi nga mon entre 3 ans et 4 ans. 10 ans après 11 ans après ñoo ñoo nekk ci mbéd bi di dok di di dàq ji Macky Sall et c'est ça foofu la question war manam fan la nguuram mëtëdee ba nga xamné ne bu ñi amone sax majeur voter, ñoo doon xex ci bi. Mhm. mais légui dañuy gis ñoo xam manam amuguñu sax de vote ñom ñoo gëna a ci bi di mais est-ce que lolu du li ma doon wax démb emprisonnement yu parce que vous vous avez 600 personnes hein? Ah, japp na plus ñep am famille am papa am yaay am dom am ay

te n'est ma la pas la personne de Macky Sall mais c'est une question de système politique xam depuis 63 ans il faut nous teggi Les sénégalais ont soxla am identité nationale sénégalais dañoo soxla manam réparer cette fracture sociale intellectuel manam moy bedd nit parce que amul diplôme bedd nit parce que dégoul français parce que dañu teup manam suñu importance langue dem di adopté ay langue yo xam manam ça ne concerne pas hmm. de sorte que dëkk bi so nekkee sax ki so nekkee jankatu alcorane wala jankatu dara dañ lay jappé né yow manam yow tekki wo dal yow tu es tu es analphabète tu es non sédentarisé hmm. té lolou dafa graw nga jugé ci ñun di la maanaam benn fracture matérielle bo xamné ci ablad lañ ko <laughs> lañ ko hérité manam dëkk bo xamné manam il faut nga wané wu nga na am auto am immeuble am kër pour prétendre que yow tu es un Sénégalais réussi et tout. Mm. pendant ce temps la plus grande majorité nous ñu ngi toog dans les dans la précarité di gën a sonn di gën a mm. et le pire mooy ñu lay dundaloo benn indigence pour maintenir. Que ku dul politicien mënul faj sa soxla. bu par exemple politiciens yi ñoom euh, bu njëkkoon du moins ay association ñoo amoon ci ay koñ. Mm-hmm. keesu jàkk ji et tout mais léegi loolu yëpp dafa dee politique moo ñëw dugal fa xaalisam bu dee keesu jàkk ji tam xarit su jotee politiciens yi ñu jënd nag yi bu dee association yi soo amee ay marché et tout politiciens ñooy pare na ñoom ñooy joxe xaalis ñooy jënd may ñooy jënd lépp te loolu yëpp dafa indi maanaam benn fracture boo xam ne ci biir population bi tant que état mënul conscient ba régler loolu dëkk bi du du du du dox booy ne ci mbedd bi di sànni ay xeer ay talpone nii ils se vengent contre le système ils se vengent contre leur état actuel maanaam mooy mm. seen état de pauvreté seen état bi nga xam ne ay oto da leen romb duñ ci mën dara oto yu cher oto yu rafet sa papa toog mënul dara sa ay toog mënul dara c'est-à-dire benn revanche sociale la te lolou su ko état jangul moy ko ñom amuñu benn maturité manam pour nous diriger te heure bi nii Macky Sall génnoon na fi néna je vous comprends le chômage et tout effectivement dans ses propos deug la manam le chômage la pauvreté et tout mais wax ji moy après lu mu doxalé moy que mom limu mu waxoon certes dëgg la mais nekkuloon du mu gëm parce que lu mu gëmoon lenn la li fi amone du fi amaat. manam damay jël tak der yi armé l'enn pour ñu dal ci kaw population bi. oui mais Sénégal amul amul tak der bu doy pour contenir la les populations amuko loolu Guy Marius Sagna yàgg nañ ko wax dëkk daa am ratio muy supposons on est 17 par exemple on est 17 millions de Sénégalais. de Sénégalais il nous faut naturellement minimum 17000 policiers 17000 gendarmes je dis minimum maanaam mën na ko ëpp mais yow amoo loolu yow amoo 17000 gendarmes am amoo sax 6000 gendarmes amoo 6000 policiers donc ça veut dire que mënoo ko contenir c'est pas possible léegi yow lan moo la dese faire place à des nervis yoo xam dañu war a ñëw maanaam seconder wala suppléer les policiers mais est-ce que aussi euh, impunité l'usage excessif de matériel de répression même à l'étranger ça mhm. pose problème parce que xam nga euh, matériel de répression yi ñun ba léegi xamuñu lan ak lan la lacrymogène lacrymogène ñu bari ñu ci casse toxicité bi waaw. voilà te loolu. dafa am lacrymogène de guerre ak. yu de maintien de l'ordre gis nga euh, par exemple lu mel France France par exemple soo commander commandé lu mel ni ay lacrymogène euh, usine bu la koy jaay dina yónnee terme de référence yi day jaar assemblée nationale député yi gëstu ko ñu xam ne lii nii si yelloo nag suñu askan wala yelloo ko suñu askan mais fii amu fi fii dañuy commander lu leen neex. wala turki may ñu lu lu lu lu lu lu ko neex après ñun ñu ñëw essayer ko ba ci seen oto yi nga xam ne maanaam seen oto yu diis yi yu yu. blindé yi et tout. c'est-à-dire oto yooyu c'est même pas maanaam euh, defuñu ko pour yenn manifestation yi parce que oto yooyu noonu mënul daw vitesse munul daw fu xat. Mm-hmm. xam xam na dégg nga ba. Mm-hmm. donc ça veut dire que am na noo xam ne yow ñu ngi koy jox ñu koy dawal di dugg si nit ñi ñoom ils se mettent en danger. parce que su ñu tegee benn wala deux mois le côté bi instant il est euh, immobilisé. mënatul hum. bouger donc loolu Bon booy lakk nañ ci lu bari sax. voilà ay ay ay jàngat la yoo nous on ñoom dañuy dem ba sax dañuy mettre en danger suñu force de l'ordre et c'est ça qui est grave loolu mo ci grand en fait dañ dem ba nek parce que so demee ba deuk population bi japp ben force de l'ordre dugg et tout loolu xam nga ken du ko saluer rafetul si dëkk bi kenn du rafetlu parce que policiers yi suñu mbokk lañ gendarme mhm. suñu mbokk lañ <laughs> donc voilà ça mais ñoom ñoom it dañoo war a ñun suñu suñu mbokk lañ bien sûr parce que bavure yi gis gis nga ay xalé yu ndaw 8 ans nga jël ko bouclier mais lolu xam lolu lolu muy firndeel lolu manque de formation lay firndeel aussi xam man keroog damay gis ben image si policier bi gars jël bi bi bi bi daw fakkasalu parcel et tout. Mhm. mais da ngay xol tu sens carrément que formation yi des na. wax ji moy manam dans quelle période et dans par quelle vitesse lañu embaucher embauché ñenn ñi ba solo leen tenue mhm. parce que parfois so amé gis-gis bu baax di nga xamné ne fii manque de formation ñak na fa. Mhm. et c'est vrai maintenant nak légui état man nekul damay xaar état mu def manam <laughs> num mu di constat pour pour pour régler ko. Hmm. mais parce que heure bi nii man xamna liko yittel moy peut-être intimider. Euh, chaque harceler arrêter intimider arrêter mais wax di moy Sénégal il faut ñu xol le système politique qui est là et il faut que mu jóge fi. Hmm. parce que li amone moo amaat Macky Sall dafa ñew rek defat lu gay def. Idriss Seck bañ koy japp bañ koy convoquer fini pour les hmm. chantiers de Thiès. 2004 ba mu demee lan lañ ko tëjee. Euh, euh, atteinte à la sûreté de l'État corruption de la jeunesse corruption de la jeunesse non ça fait rire dans ce procès hein. bon ça fait d'abord est-ce que procès est terminé en réalité. Parce que j'ai beaucoup de confrères qui m'appellent, euh, mais votre procès là ressemble à un film pornographique. Oui, bien sûr. Non, parce que moi, man, man, je me une affaire. Man, je me demande le procès bi, am pour défaire la justice sénégalaise. Parce que les Sénégalais, nous beaucoup pas que Sonko manam violé wul c'est évident ko xam maintenant nak jël benn fille boo xam elle est majeure euh, rapport médical wane na ne xam

maanaam perdre na ndawam. Mhm. kooku aussi noo si commission de la jeunesse. mais dans tout cela est-ce que le problème fondamental bi Sénégal am du justice. parce que li may wax ne maa ngi koy wax qui lépp lu fu ci ay nit Sénégal ñu gis ko ci décision de justice la parce que euh, justice la madame daa am lu justice mooy ki ñu fiy teg Sénégal doit changer Vous fi lu fi changé. Mm. président moo changé xaw ma wax hmm, manipulation bu justice. Diouf defoon na peut-être parce que bob réseaux sociaux amul woon xale yi gënuñu woon qui mais à na Ablaye Wad, amna bamaki ba amna Sall qu'est ce qui changé madame la tête du président a changé mais sinon li a am am xamul tax parce qu'il faut déjà ñu am le président boo xam carrément se départir de ce système là socialisme libéralisme entre autres. Hmm. ñu jugee ci jël moment boo xam dañuy xool nan la ñu mën a maanaam tegee ay juge pas di ko nommer mais di ko élire parce que juge pour mu am indépendance am il faut ñu koy élire mhm. tant que yaa ngi nommer nit maanaam day xool nu mu la remercier c'est ça la vérité tant que yaa ngi nommer nit day xool nu mu la remercier tubaab bi xam lu ñuy bàkkoo maanaam di def loo xam ne maanaam lu dul élection moo leen ëpp succès que nomination la preuve la preuve fii le ministre am succès parce que fini, da ngay def da ngay am dañ lay fal ministre sa wa keur maye ben ne sa ndaye ko liggéey sa ndaye ko liggéey. tagal la sa voilà gars jubilé mais Europe Europe do sax xam diw ministre wala du ministre. peut-être yenn ministre ngay xam manam ministre des affaires étrangères ngay meuna ragné ràññee. ak intérieur mais sinon tous les autres ministres ils sont affamés. parce que pourquoi parce que dafa am lu jitu lu jitu mais manam servir la population nek manam ci bëgg-bëgg at li action di xaar nga nek ci di ko def mm-hmm. par exemple le ministre ñuy ciblé xale di ko taal xam nga loolu rafetul mais lan mooy causalité bi mm-hmm. maanaam mooy ministre bi dafay chaque jour a 5, quatre ay cinq huit dix oto di fa gaare ba nga xam ne képp ku fa day ne wala même su xamul kër diw la il suffit mu laajte rek ñu ne ko ah fii de kër diw la. da ngay wax ne cinq six oto yoo xam ne boo leen boolee oto yëpp war na mat un milliard. waaw mais oto yoo xam ne tamit c' est même pas conforme ci lu état bi prévoir pour voiture de fonction. Mhm. parce que voiture de fonction warul dépasser 20 ba 25 millions mais fii amatuñ voiture de fonction hein. voiture de luxe la ñu am. dañuy gis ministre yoo xam ne ak directeur yoo xam ne oto yoo xam ne minimalement cent dix à cent vingt millions la ñuy dawal dañuy gis ministre boo xam day dawal benn classe S six cent te waru koo dawal classe S600 soo demee maanaam même Allemagne. Mhm. chance bi du ko dawal. Mhm. te fa lañ koy defaree ay Audi A8L waruñ koo dawal ay Q8 waruñ koo dawal ay série 7 BM waruñ koo dawal ay X7 waruñ koo dawal oto yoo xam ne yow soo ko jaayoon yaa ngi defarlu ay dispensaire wala ay école ci àll bi àll bi ñoom ñu toog di yor ay école yoo xam ay école lu xob la ak ay banc brique. Mhm. du yoon léegi nag mooy li ma la wax ci revanche sociale bi xale yi foofu la ñuy toll maanaam di cibler cibler pourquoi diw de ah même si que état bi mom et tout l'essentiel moy état bi liguel jege na Macky Sall nañ rek après kon nous parce que non lañu xalaté té te su fa dëkk tollé moy que arrogance bi warna dañ wanew bi warna dañ mais soirée de gala yi am ni fi at soirée yenn euh, orchestre la ñan ñofay tok jabar ministre ak directeur di may ay chaîne or di may ay ay millions fan lañ koy sàcc. waaw ah, léegi jeex na bu fekkoon pal bi amul woon duñ ko am donc ça veut dire que Macky Sall heure bi nii mën na sax fal ministre ministre bi il a beau être humble il a beau être normal mais jabaru ministre bi mooy yàq mooy yàq deru gouvernement parce que Macky Sall fal na x ministre jabaru ministre boobu noonu maanaam dem na ci denn xew may na fa tant de millions wala yebbi na fa tant de choses kooku Macky Sall la yàqal. waaye <laughs> donc loolu loolu ay jàngat la da nga koy sóor. mais ci ci loolu tamit gis naa ne. Euh, ci système bi toujours xam nga Sénégal waroon na am ay médiateurs yoo xam ne ci crise dina am mais dafa mel ni médiateurs yi dañoo dugg ci système bi ba tey ji kenn sañatutoo wax parce que booy dem nañ ba nànd loolu. waaw parce que xam nga dama lay expliquer cest man li ma waxoon lay waxaat Sénégal ñett yi dama ko wax maintes fois. te mhm. te moom te moom te moo am ci mbedd bi. maanaam lii di euh, le pouvoir euh, de l'opposition. Mhm. askan bi da ko jëlaat. man je suis opposant Sonko il est opposant mm-hmm. Déthié Bougan, Bougane Abdourahmane ku opposant mais l'autre, tax demuñu demuñu dialogue bi parce que ñun nous ñu censé représenter nous ñoo bëggutu la wax ak Macky Sall mm-hmm. dialogue bi man bañu ma au fond Sonko bañu ko keneen bañu ko ah. sur le principe bañu ko parce que dëkk dialogue lay doxee politicien dialogue ngay waxee mais de fait et dans les circonstances lan moi, am ci diggante bi maanaam ay dige yu bëri yoo dem voilà léegi nga ci le pouvoir euh, euh, présidentiel. pour pouvoir présidentiel instant qu'est-ce qui se passe Sall askan la justice la la justice dans la rue que quoi bu na nan la askan bi défier justice a nga convoqué dem and hmm. marque de défiance askan même si vous ne maanaam que nga woo Idriss Seck gars yi gunge ko nga woo Sonko gars yi gunge ko nga woo Sonko yeneen gars yi gunge ko loolu askan bi mi ngi wan juste bi ne ko yee eh, wóoluwuñu la léegi ñu dem ba ci biir affaire bi gën a xóot maanaam nga woo kenn. ne ko non seulement dañ lay gunge mais léegi sax dematoo wuyutuwoo warul wuy justice est-ce que hmm. xam nga xam nga hmm. affaire bi day gën a xóot quoi. Hmm. c'est-à-dire processus la. c'est un processus négatif bo xam day gën a à l'encontre de l'État à l'encontre de Macky Sall mi nga xam mo mooy incarne président bi parce que bu njëkkoon Macky Sall woo nañ ko fi ba muy dem. Mhm. dañ ko gungé waaw ñu ko gungé la moo tax ñu gunge ko parce que dañu jappé né Abdoulaye da ko bëggoon faagagal. Moustapha Cissé Lo moo ah. nekkoon deuxième côté da doon wax do laq dom dor dom wa légui léegi légui nak yow justice bi askan mi na la dama lay gungé mu juggé ci na la gungé tuma la da nga dematul ñu juggé ci na la légui ok condamné nañ la mais condamnation mi kenn du la si tej est-ce moo la wax loolu ba tey yow kon yow xalaatal sa bopp ak justice. mais est-ce que li yëpp c'est pas un problème d'égo et d'honneur pour Macky Sall contre contre Sonko ça veut dire que il a en fait non pas en tant que président de la République bu war a dépassement sauvegarder la République mais mu def ko un problème personnel. bon ça dépend su un problème personnel parce que parfois je me dis Macky Sall.

dafa tëddee ci ay injustice yoo xam ne maanaam injustice bi nekkul kese tribunal nekkul juge bi nekkul juste maanaam hmm. victime yeeg yoon injustice bi dafa nekk maanaam ci biir nit ñi Sénégal da ngay xool dëkk la boo xam ne par exemple am na fi ay étrangers yoo xam ne et des lobby étrangers yoo xam ne ñu ngi fi toog di fi tedd di fi am ay titres fonciers di fi am lu nekk te kenn du wax kenn du ngang ñu imp impôt ñu dara te ñooñu xam nañ ne lii ñëw après 2024 menace la si ñoom da ngay xool maanaam agence d' assurance yi fii Sénégal Sénégal yow sa oto yaa ngi koy assuré mais bis bu yàlla defoon nga instant bi nii tu sais que tu vas pas tu vas pas perdre de temps dem ni ne sama assurance lii ak lii fii ñi am assurance ñu bëri loo tax ñu am assurance maanaam pour bañ a am problème ak policier bi ci circulation bi enfin man moom personnellement loolu tax ah, assurance oui tout à fait man man musuma am benn choc wala nit mbëkk ma may perdre temps ne ko constat et tout bu dee yaa ma mbëkk baal naa la bu dee maa la mbëkk na su la neexee nga constat wala ñu xool nu ñu def léegi yow assurance yi kenn fayu ci impôt pourquoi parce que nous sommes tous chaque fois le président qui va venir le président qui est là Nous avons tout ce qui est impôts et taxes et tout au nom de quoi yow pour def manam pour assurer son auto. Les fan lay nga ci nga jël ay nit da ngay Dakar ben 10 000 mètres jox leen ko ñu jël ko raser ko viabiliser ko def ko cité tout par mètres jox la wal yow état après moom mu nekk de toog jàpp ñàmburam borom ñukay woy c'est un homme d'affaires réussi c'est un c'est un cela non non té loolu yépp c'est le système système bi la pendant ce temps yow sa dëkk ñi nga xam ne ñoom ñoo yellool kër at suuf parce que sooy xool tubaab bi lu tax ñoom ñu gën a tubaab bi fan lañu fan lañu régler maanaam les fronts sociaux dañoo jël ñu bëri maanaam régler seen problème ci kër at suuf pare kenn ki mooy policier bi kenn ki gendarme bi la militaire bi la docteur bi la

dama andak ak jabaru Macky Sall dama andak ak doomu Macky Sall dama andak ak beau frère Macky Sall après sur cette base là. tu tu deviens riche. ouais tu réussis. waaw da ngay dem ba benn sans yow mi nga xam da ngay sax nek un opposant. loolu la loolu la booy di wax tok muy dox. waaw ah, tok muy dox wala voilà la muy dox. man xoma nu ko muy man buga dama ko wax. ne ma moy tok muy dox wala wala nga jël souf xoti ko ci all bi. ku si nek di jaay ne amna tol et tout tol bo xamne yow gëmoko amo ben mam bu mës a gérer tool mais parce que am nga les moyens parce que am nga ay auto yu ngand am nga manam les moyens do fay essence do fay dara que maanaam am nga tool ñom lañu ñu manam les cultivateurs du dimanche. manam mm-hmm. dimanche bi dimanche ñu fay nek pendant ce temps ñu ko jox ben gardien gardien bi dëkk fa njabotam après ñu gérer et tout wala nga am ben kër bo xam ne yaa ko am ay petite côtes et tout te yoyep yëpp du la dikkee dara légui nag lolu da nga dañoo bëgg ñom lolu di continuer di wëy askan bi di gëna ñaak di gëna a sonn dëkk da ngay xol manam lan moy priorité bi ci dëkk bi nga yombal ko lu tax suba soo demee Europe gars yi cheral sangara wala cheral hmm. nu mu ay hmm. cigarette waaw pour lan hmm. parce que dañoo jël loolu yëpp cheral ko xam nga pour lan pour yombal maanaam denrée de première nécessité yi. du chiadé aussi les jeunes à. bah oui mais mais yow heure bi nii Sénégal lu fi maanaam li gën a maanaam yenn yi moom mooy mooy <laughs> mooy yomb ah. maanaam mooy li nga xam ne moom moo gën a néew consommateur mais li gën a ëpp consommateur moo gën a cher essence bi ñuy def la litre essence 1000 francs t'imagines il met essence 1000 francs te ñu koy décider du ñu fay essence parce que système bi soo si tu peux vivre 20 ans dans le système doo fay essence xamoo lu essence di jar ñiy décider ni litre essence day dem ba 1000 francs ñoom du ñu fay essence Sénégal man xam fi ñoo xam ne sax c'est même pas ils sont même pas ministres hein. ils sont dañuy am bon bay maye bon. moom laa lay expliquer c'est juste des laudateurs et tout Ils am une carte boo ay carte annuelle essence te su ma la nee fu mu jógee doo ko sax donc voilà c'est-à-dire loolu askan bi xam buñu ko askan da vous avez askan bi dafa tëdd am smartphone bi message notification Dakar matin Sénégal Dakar actu sans hmm. limite 313 ñëpp lay yee ne la jugal maanaam diw ak diw sàcc na lii jiñ ko lii affaire yow nga sa sa xol di sa bon. grave nga étranger carrément occuper carrément parce tous les grands nous euh, grand caricature Sénégal critères pour être un pays euh, de dictature mm-hmm. mais à la seule différence que une euh, dictature yi Chine la Corée du Nord ak un président yi fa intérêt de défendre mais une dictature bi plus lu dëkk boo dictature lay doxee maanaam moo bi diisul. wax ji lan composé moo bi. dafa am dictature éclairée comme régime communiste wala nari wala ba ci tubaab gérer l'intérêt de l'ensemble et du général xam nga ma uh-huh. mais fii ñun Afrique dañu am ay dictature personnelle ci ay Euh, neexal ñu ko bëgg ñu bëgg maanaam dem sukk daal jébul mm-hmm. léegi nag loolu tànk mi ngi am dëkk bi plus ngay xeex major majorité mënoo ko xeex lu yàgg maanaam majorité mën nga leen nax en un de temps. Mm-hmm. mais un moment dañuy défier taxaw jàkkaarloog yow te heure bi nii Macky Sall bi bu muy tenté pour def ko mm-hmm. Sénégal loolu mënul nekk. c'est-à-dire nga tëj diw. toroxal diw menacer diw saagalu diw itu loolu yëpp maanaam yàqul gars yi ci lenn.

Mm. heure bi nii ñan ñoo ne ci mbedd bi. ay xale ay xale kéro Macky Sall ba policier yi wax la dañ ne oui c'est des enfants de 14 ans 16 ans 17 ans mais léegi nañu def maanaam nañu remonter le temps xale yooyu noonu ba Macky Sall di falu maanaam amuñu sax 6 ans amuñu 5 ans mm-hmm. te heure bi nii ñoom ñoo nekk ci tali bi di intimider le règne de Macky Sall kon ça veut dire quoi ça veut dire que lan fan la état bi maanaam faussé sa politique parce que. France ba jeune bi ba jeunesse yi commencé peuple lan lañ def dañu ne dañu ne jàng ba egg ci ay diplôme amul njëriñ lu am njëriñ mooy maanaam créer des formations. formation formation yo xam manam dang koy teel mën à à l'âge de 13 ans 14 ans tu as le choix de faire une formation avant nga egg 17 ans 18 ans 20 ans sax yow commencé nga nek salarié. Mhm. te ki jang dem ba am diplôme yéen ñaar yéenay bokk parce que SMIC parce que la loi du SMIC l'impose xana peut-être ci ay heures supplémentaires. te mhm. parfois yow mi nek en formation ba réussir ce sa métier. Mhm. yaay ëpp salaire ki nga xamne mom mo tok lu yàgg am ay diplôme bon mais est-ce que aujourd'hui bu ñu xoolee yaa ngi ci système bi est-ce que ñi nekkoon ci dialogue bi te ma gis lañ fa ñu wax Macky Sall dóoral hein, fëggal est-ce que ñooñu en réalité <laughs> du ñooñu ñoom ñuy dundee système bi moo tax ñoom ñëpp ñu fees ci dialogue bi. waaw système bi dafa yaatu de système bi am na ñoo xam ne ñoom ñu ngi euh, tabaski ci système man tabaski seen seen xaru tabaski ci système bi lay jógee. Mhm. am na ñoo xam même sen muurum koor ci système bi lay jógee ci dëkk bi est-ce xam nga lolu muurum <laughs> non non xuma la c'est-à-dire dañuy toog defuñu dara yëngatuwuñu ci dara te chaque fois ñi ngi jot sen enveloppe lén kese lañ mën. maanaam sotle président manam su président demee ba nek en danger wala comme nu mu def woote dialogue ñu ñëw solo ba rafet tok wan ko ñi ngi fi mais ñoñu fa nek ñëpp dañuy dañuy cëru de. nekkul dañuy toog nii rek et xam nga Sénégal mooy li ma la c'est-à-dire Sénégal dañu toll foo xamante ne euh, dañu dañu pàccoo dëkk bi def ko benn gato léegi gato boobu noonu ñu mu yellool xam nga feet gâteau xale yi la yellool. Mm-hmm. yellool ak mag yi. yaa may dégg. bien sûr soo demee ci benn feet. <laughs> xam nga xale xale yi la ñuy daggal gâteau yi xale mais fii mag yi la ñuy daggal gâteau yi xale yi ñoom ñu bàyyi nag xeer yi. <laughs> loolu kese ma fi am ce que comment parce que dama doon gis ne xool dama xool moyenne d'âge dialogue bi. mu mm-hmm. ñi nekk ci dialogue bi ku nekk boo làqul 60 ans jëm kaw làq nga 70 ans ki 80 mhm. ah nga ne yéen réfléchir pour l'avenir de 75% d'une jeunesse nga xam la population sénégalaise est composée de 65% de jeunes. la mais loolu en fait man man sur le sur le nu mu tuddati sur l'âge j'ai pas de problème xamul tax mhm. parce que de dafa soxla toutes les composantes. absolument pour avancer. ëllëg par exemple su yàlla defoon Sonko président voilà le président mais on aura besoin des conseils peut-être de. oui Serigne Diop s'adapter des conseils de Maïmouna Sourandir des conseils de ñeneen ak ñeneen mais si kaw ñoo ne am nañu personnalité ak bonne réputation boo xam ñii xam nañ ne certes nañ gouvernement et tout mais am nañu way bu rafet. mais xam nga lu bañ lu bon mooy ñi fi nek ño xamné ne lepp lu ñëw ñu and ak mom mooy ñu ma la wax sànq rek ñi nga xam ne ñoom ba Wade di accroché wu ci troisième mandat. Mm-hmm. ah ñoo fi nekkoon ñoo fi nekkoon. Wade daanu ñu dem kottu ci ginnaaw Macky Sall di ko gëmloo ne ko troisième mandat bi c'est possible man ñooñu laay wax c'est que ñooñu ñoo baaxul ci société sénégalaise bi te ñooñu keroog malheureusement tamit ñoo nekkoon ci dialogue bi daal la mesure où dañuy gis ñoo xam dañuy toog di waxee noo xamante ne dalay lay wër na seen intérêt bopp kese la ñuy waxee. ay gëmmu dóor gëmmu dóor ok gëmmu dóor après fin bi xippi joy parce que lu am ci ëllëg sa xam nañ ko xam nga dama leen wax dama leen ne lenn la am woote dialogue. nga ne gëmmu dóor xippi joy xippi joy waaw. waaw ah, waaw parce que dañoo woote dialogue la lendemain. waaw léegi yow te woote dialogue bi lenn kese la c'est-à-dire da ngay woote dialogue pour isoler un candidat dialogue bi amul lu ko tax a jug lu du isoler Sonko man waxoon naa dama leen ne day woote dialogue gars yi toog. C'est un album de famille album yi wër ñu Sénégal c'est un pays de dialogue c'est un pays de stable et tout le lendemain ñu condamné Sonko et ça s'est passé comme ça Madame, il voulait avoir des complices pour ça quand ñom ñep ba ciow li ba code du dialogue c'est des complices complices si si verdict vous rendre compte Sonko lo nga bëgg verdict bi et aussi mettre les conséquences du verdict. Mm-hmm. verdict bi et les conséquences mais la preuve ñom ñep kan moo jox après ken waxu ci ñu nekkoon ci dialogue bi dialogue, peut-être Idrissa moy gesticuler parce que moom dafa bëgg langaamu pour communiquer mais sauf que à part moom kenn waxul kenn waxu ci. ba Khalifa Sall wax na. non Khalifa amul problème Khalifa moom sama gars yi nee nañ ma bàyyi ko naa ko bàyyi rek amul problème. <laughs> sama gars yi <laughs> mais yow euh, waaw mais Idriss Seck nañ ko gisee temps il fait feu de tout bois. non communication politique la rek xam nga xam nga politique dafa am communication boo xamante askan bi mënuñ ko déchiffrer tay bon. j'avoue ah. j'avoue ko yombul dama la exemple mu daw. Ah. keroog ba Macky Sall Dakar dem Touba gars dañ jappé ni ne bii bi dako wo dako convoquer et tout mais c'est pas ça. c'était quoi. c'était juste pour montrer que xam nga xalif bi daam ñu jiitu ci noppam ne ko dëkk bi mi ngi tak mm-hmm. xale yi ñi ngi toj commerce yi doxul ñepp ngi tëju seen kër ñi nalaw nañu mbedd yi tak na. Ah. parce que je pense que le gars là le mbuub bi nekk ànd sàmm jikko yi defe naa. Mm-hmm. Babacar Mbuub Babacar moo ko waxoon na gis naa xalif bi wax naa ko lu am ci dëkk bi après Macky lu mu def dafa dem xam nga so jógee xam nga xalif bi. su gisee est-ce que recevoir nako non ah Gabon version Ibarine. Non, non non man man moom ne recevoir peut-être parce que parce que man man mi man mi dul dara sax xam naa su war a dem Touba man daf may wóor ne ñu ngi may xaar wala dina voilà donc waxuma la do tëb rek dem président et puis et puis et puis sëñ Mountakha dafa am worma ci ma bien sûr loolu laa wax ba gars yi di waxee mën na non man na ko recevoir audience bi mën naa bañ a yàgg même recevoir voilà donc donc voilà mais xam nga suñu ñëwee ci nopp xalif bi ne ko dëkk bi mi ngi tàkk xale yi toj nañ fépp mbedd bi kii péage bi sax dañ ko tëjatul itu affaire noonu léegi Macky Sall ju jël otoom Dakar ba Touba ñew wuy si xalif bi kon xalif bi dina japp né ah dëkk bi nu muy takké ba paré ki di ñëw ak gangoram at ay otoom. Mhm. loolu yëpp communication la. loolu la bëggoon gëmloo nit ñi quoi. voilà mais nekkul dafa dem parce que xalif bi daf ko convoquer pour lui parler de la suite non non parce que xalif bi mën nga ko gis lu dul ziar do ko def ah xalif bi soo la plupart du temps ziar kese ngay def. ñëw yéssal sa njébal ñëw né ko dëkk bi ah soxla na ñaan et tout mais do sax mëna expliquer yenn détails man et mais kilifa gi politique parce que su day mhm. donc du coup day ñëw rek yam si nga ñaanal askan bi nga ñaanal mais quelle est la porte de sortie par rapport au Sénégal mi ngi crise mhm. c'est un cycle. parce que loolu lii dund nañ ko 2011 2012 Macky Sall F24 mars tey mais munu non xam nga xam nga sorte de sorte bi lenn kese la et je pense que Macky comprendre na ko en fait wax ji mooy. Euh, foog nga ne comprendre na ko. waaw comprendre na ko parce que aussi Macky xam nga. sonné lire nga conseil des ministres wala da doon bluffé rek. non loolu ay loolu communication la rek xam nga c'est-à-dire soo demee bay ñaan. maanaam euh, rallonge deux deux ans de plus pour ce mandat. mais nee na weddi nañ ko ñoom. non loolu ça à loolu dañuy dañuy tester mais loolu dafa am ñu mu arrangé. si biir daa am ñu mu arrangé ku les ni Khalifa Sall arrangé na pourquoi non parce que yow ba obligé à huit mois des élections tu n'es pas éligible kon suñu reporter élection, il yow lay arrangé Karim Ward c'est pareil <laughs> ñoom la arrangé nous arranger arrangé mais quand même c'est c'est amoral je dis même pas immoral et puis c'est la preuve de l'échec de Macky Sall dans la mesure où yow nga nekk ci ngour oui, qui di wax quand même c'est inadmissible. parce que parce que et puis pas notre problème nous. c'est pas notre problème. c'est à lui de s'organiser pour partir. effectivement et partir à temps. le calendrier républicain. républicains <laughs> mais malheureusement Macky Sall ñi mu des a nous conseiller jàppee ñun vrais les opposants mm-hmm. et ñun des carburants, des carburant tabaski de fonction avons mm-hmm. rek c'est pas compliqué mm-hmm. mais malheureusement bugguñu déglu pour moom lenn a maanaam farataal ci dëkk bi mooy noppilooñu te étouffement de Mhm. quand les opposants maanaam ñu ñu noppiloo leen état day fat parce que mhm. pour moi l'état opposant bi la parce que c'est l'opposant qui oriente madame l'état et ceux qui dirigent l'état mhm. mais malheureusement Macky ça loolu euh, xamuko te bëgguko mais bon j'espère que dina diñu mi déglu ça c'est une crise bi lan la pour yow nga ne comprendre non ça de crise bi ce là la euh, mu tok jël euh num ci autorité wax ak sénégalais yi wax ak sénégalais yi fofu Tahirou Emmanuel Macron dafa xaw a Covid. Mhm. xaw a Covid. Mhm. Macky tweet. Mhm. tey jii ñu ngi wax ci diggante trente ak moor ak gotub Macky na pat. Eh, booy benn xale bu ndaw bu décédé Maroc Rayane. Rayane suulu ci teen Macky tweet aussi. Macky tweet. waaw ah. tey moom fii askanam. kii kii kii gaañu nu mu tuddati euh, ren Angleterre bi gaañu Macky tweet ak waykat bi euh, ci am na benn waykat bu rock bu rock. waaw ñu mu po. Mike Jagger je crois Mike léegi mais loolu yëpp am. bakkan yi ñu ko dénk. ah bakkan yi ko dénk mu war leen sàmm mm-hmm. rot. Mm-hmm. Macky faale wuñu. waaw non faale wuñu du tweet sax faale wuñu. sax toptawuñu waxu ci daal. waaw am na lu man faale mooy nga génn. masawu xam nga soo la waxee ñu ne conseil des ministres. xam nga ñoom ñoom dañuy. gis nga moo tax man na mondialisation boobu noonu foofu moo nekk seen piège parce que heure les crimes qui se passent devant les images. day dem ba à l'ordre international. te y a des comités qui s'organisent maanaam pour les blâmer sur ça moo tax may artu tout le temps ma ne na gars yi di xool déjà yan ordre la ñuy recevoir ak yan ordre la ñuy nangu ak yan ordre la ñuy exécuter. mais loolu si amati na fi parce que léegi fii fii lépp tout est filmé waaw mais fallait faalewuñ loolu xoolal par exemple séquestration domicile Sonko. waaw oh. ci fa lañ ah teg. ah teguñ ko fenn lu dul maanaam jaay doole parce que ben décision de juge wanewu ko malheureusement et lolo moi il est la wax rek euh, il faut ñu changer le système dégager système bi fi nekk fii ba pare. Mhm. xool nu ñuy fallait suñuy juge parce que loolu yëpp ci manam justice le basé wu heure par exemple il suffisait qu'un juge mhm. porte plainte sur le fait qu'on séquestre Sonko parce que amul benn décision de juge ça allait faire un tollé et ça allait avoir un succès mais kenn nangul jël ses responsabilités sur ça parce que on est au Sénégal tout est politisé euh, mën nga ne gars yi dañ lay xañ sa salaire dañ lay muter, wala dañ lay yóbbu euh, Tamba wala <laughs> Ziguinchor affaire yooyu quoi. ça def nañ ko téliko de far yàlla ubbil ko buntu bu voilà c'est et c'est malheureux mais bis bu yàlla mayee ñun moo loolu lañ bëgg ñun mouvement national sénégalais ba am nguur changer le système déjà si juge rôle du juge n'y nu ñu leen di ci batu askan bi. Mhm. pas organiser des élections comme présidentielles mais rôle manam sur ordre des élus par le peuple nu ñuy nommer ay juges. Mhm. juge bu nek am sa place am sa way de sorte que les lo mëna liggé liggéey koy liggé ci xel bu dal def séparation des pouvoirs. parce que système bi lenn kese la fi indi. Mhm. on te parle de oui homme d'état homme d'état fi Sénégal amul homme d'état Sénégal y' a que des complices d'état manam ñu ci teranga ñu ànd si donkaasi gi ñu ànd maanaam ci nëbbalante ak jëlante ak jëlante loo xam ne sax moomuñ ko askan bi ko moom après di ci ànd gëmloo na ñoom ñoo ñu diriger te loolu mu neex Macky Sall mu naqari ko loolu daanaka askan bi mi ngi koy jéexal te mi ngi ko koy wan naa nag moom moo war a am jàngat ne lii yàlla suturaal na ma maa maa jeexal système bi dem naa ba jeexal sama deuxième mandaa naa delloo askan bi seen dëkk ñu xool une nouvelle république bu ñu mën a teg ci dëkk bi. Euh, advienne que pourra même Macky bu nekkul candidat troisième mandat euh, dina fi bàyyi woyu rafet parce que li mu tëj defe naa benn président mosu tëj ci réew mi. non mosu tëj. li fi dee ci ay ballu fitalu kii defe naa benn président mosu ko fi. dogguma la de système yi mooy doxee noonu. gis nga système bi. ko mais moom est-ce que non système am na fii ci non non xam nga expliqué la Wade dafa def lu raw Abdou Diouf def. Macky def lu raw lu def. keneen ku fi bu système bi la lu raw lu def lay def moo bi Khalifa président amuñu intérêt Idriss président amuñu intérêt président amuñu intérêt président et je l'assume wax parce que ay nitu système bi lañu nous un instant yi nous ci Macky Sall nous avons ku ci de président parce que nous avons fi de justice madame euh, comment dirais-je. gëddëm gëddëm du am. kenn du assemblée nationale nous gérer dëkk bi madame pour askan donc voilà xam nga imagine assemblée boo xam nous avons dit dans la majorité na pour intérim mais da koy contrer da <laughs> grave en fait. Et d'ailleurs, moi, j'ai vu, par exemple, des réactions, yo, tu accuses Ousmane Sonko, tu accuses Macky Sall, di wax défendons la république mais la république est entre les mains de Macky Sall. waaw mooy li la république cest de l'hypocrisie à la république bi. gis république bi ce li Macky Sall fait mais tam mooy li Macky Sall maanaam fexe ba mu mm-hmm. parce que république mooy loo xam ne da nga koy yor te donnoo ko loo yor te donno ko da nga koy dellu te loo yorta doon noo ko waroo ko bokk ak ñi nga bokkal république doo ko bokk sa frère doo ko bokk sa sœur doo ko bokk sa jabar doo bokk ak kenn hmm. soo demee yenn dëkk yi yenn dëkk yi nii maanaam euh, jabar benn rôle kese la am gunge jëkkëram te du tout le temps hmm. te du le temps te doo ko dégg doo ko gis mais fii malheureusement fii lépp du fi am est du jabar sax mooy jël décision waaw ah bon am na ñu koy wax aussi tamit xool nu Afrique di doxee loolu tam lu ma nekk la donc voilà maintenant bon. Euh, li am solo est-ce que face à cela l'opposition n'a pas plus intérêt à être un bloc égo surdimensionné de part et d'autre ñu teg ko de côté. opposition bi mu nekk bloc du yomb xamu tax. Hmm. parce que dafa am ay intérêt personnel yuy jouer. da ngay xool ku mel Khalifa Sall moom na pas rek moo ko intéressé te wax na la ko fii. Hmm. waaw loolu kese ko intéressé heure bi nii Karim Wade lenn kese ko intéressé maanaam mooy ñibbisi donc ñooñu pour un moment mën nañu ànd ensemble de l'opposition pour faire mais ben moment lenn kese lañu gis manam seen mbiru bop te Macky Sall loolu la xam motax tax ba mu leen si dafa ah, en tout cas ku bëgg bok di nga ñëw waxtaan wax na len ko te lool na parce que xam na ne am na ñoo xam ne bokk leen gënal toujours à être loyal envers l'opposition te ñu ngi koy wane dëgg la neexul wax mais c'est la vérité. est-ce que Andrew Ousmane Sonko est-ce que du modèle de référence pour la jeunesse sur sa détermination à lutter. non xam nga Ousmane Sonko c'est pas un personnage politique. Hmm. Ousmane Sonko c'est un discours politique. un discours politique. waaye ñu bëri foofu de ñu lajjee moo tax ñii di investir di positionner au cas où demul jël ay kii yëpp dañuy nax seen bopp Ousmane Sonko c'est un discours politique. gis nga keroog nous suñu kiiw F24 bi benn moment ba ba El malik yéegee. Hmm. mu ne wii jot Sonko nee kep ko fi wax at ko fi ki nañ ko tàcc jox ko war mom jox ko nuyu mais amna na xam dañ nekkoon jigéen xam dañ doon yuuxu. Hmm. Sonko moomuñu ñoo ko moom c'est vrai c'est vrai ah non Sonko C'est vrai? C'est vrai? C'est c'est pas un personnage politique. Hmm. c'est un discours politique C'est ñaar C'est lu ñu vrai? a vrai? c'est Sonko C'est choses yu état respecté respecte askan bi état respecté vrai? Sonko vrai? C'est état C'est vrai? Sonko at askan nga force contre l'état

mu raser ko jaay ko tuddé ko cité jaay ko def def ko alalam jox la sa Sénégal auto fi am nit ñi di cotiser di fay assurance auto dëkk boo xam choc assurance en <laughs> jël en charge sauf quelques rares ñi nga ne dañuy fay ay assurance parce que une société moom moo géré loolu noonu hmm. mais bu dee particulier bi kese yow fii mun bi amul nga ce dëkk ñoo xam ne amuñu këyit Sénégal xam am na wax naa la ko fi bien sûr am na ñoo xam ne amuñu këyit amuñu droit d'être citoyen dans ce pays là. xam nga soo xoolee par exemple manœuvre bi am ci man ci bi ci manifestation yi on voit des enfants de 14 ans 16 ans ça veut dire quoi ça veut dire que instant yi war sax porter la réflexion ne est-ce que waruñu commencer maanaam l'âge de vote à 14 ans ou 16 ans. parce que xalé yi ne ci mbedd bi ni ko ci talal micro mom xamna xamna xam na lu mu bëgg de. Mhm. te gisu ko ci Macky Sall gisu ko ci état bi. nga jóge ci ay Covid jaar fii ay yu nekk jaar fi nga bàyyi ba affaire yi dem ba maanaam yow mënatoo ko maîtriser si naka nga jël nit ñi tere leen tere leen liggéey tere leen lekk tere leen naan tere leen lépp ba pare nga jël di leen dóor di leen toroxal. Hmm. loolu dafa garaaw. ba pare xam ma lu gën a te lu gën a dangereux si wax ji xam nga lan yow da ngay jël benn population nga koy former à la rancune. Hmm. Hmm. xam nga nag comment baax na expliqué. Sénégal da ngay xool léegi tabaski bi mi ngi ñëw instant bi nii. ñaata ménage ñoo narul am xaru tabaski pour la bonne et simple raison manam tu n'as pas été responsable toi l'État à dire que mbirum xar ak mbirum ndawal dañ koy peese comme dans les pays sérieux mais man damay bàyyi man né non ku nekk na jaay lu ko nexé xar bi jar trente mille tabaski 130 000 mille lay jar moo tax soo gisee xasuma jaaykatu xar yi mais jaaykatu xar yi lu ñuy jaay xar yi cher yëpp lu ko si gis da nga ko yërëm day mel lekkul xaalis te pourtant ay millions la ñuy yor parce que rien euh, nu mu si bénéficie riba la ci nit te loolu état moo ko seetaan état moo seetaan dem ba yenn sénégalais yi nekk jullit amuñu droit wu ak maanaam mën-mënu def tabaski pourquoi parce que maanaam état moo ne ah xar yi nan ko jaay leen neexee léegi état dafa jël gars yi ne leen àndaloon seen sago seen ñàkk at seen xaritu seen biir yéen yéen a xam. mais ñun mm. état may lañu ñun suñu confort suñu privilège ak suñu jàmm te loolu dafa dafa graaw moo tax ma ne la état. Mm-hmm. respecté wul askan bi te loolu bëri na exemple yu bëri. Mm-hmm. da ngay dem ci hôpitaux Mm-hmm. hôpitaux da ngay gis maanaam benn devanture hôpital ñu koy rafetal nga dugg ci biir du am douche mi ngi fii Dakar. bari fi waaye am na hôpitaux yoo xam ne amul douche ooy nga dugg ay urgence <laughs> yoo xam ne urgence yoo xam ne branlon moo la fay moo mooy tax ñuy faju man yóbbu naa sama maam urgence wallahi azim dama ñëw gis gars yi branlon di wootante téléphone pour mën a dugal seen malade yow su amul branlon da ngay toog di xaar patienté ay deux heures du deux heures trois heures de temps c'est grave ah dëkk bi ci askan bi. di ko état bi te c'est dommage. c'est dommage. et que ban issue la pas, am dans sa confrontation parce que dama jàpp ne nit ku bëgg fitna la confrontation. bon euh, peut-être naturellement, la xam nga nit nit bu nature xam nga soo gisee dëkk bu loi textes pour pour que soo xasee di diriger sa nature du dugg ci di ci ni ngay diriger xam nga comme ba. maanaam soo demee fenn ñu def fa ay règles c'est pour éliminer ta nature propre da ngay ñew ñu né li conformer aux règles aux règles. Macky Sall na malheureusement euh moko mujjee hein muy waa Dëbëj mom kenn respecté wul règles am ci dëkk bi lenn kess lañu xam luñu bëgg at fuñu bëgg egg at luñu bëgg ci dëkk bi te lolu dañ koy am ba ben moment après day day day day mbëkku motax tax la président dañ la koy wax en Europe président c'est 8 ans dañ lay commencé jéppi c'est 10 ans ça askan da lay commencé bañ heure bi nii Macky Sall jeexal na Macky Sall jeexal na et je sais que xam ko il est très conscient que jeexal na te amul lenn lu mu mën a def loo xam ne maanaam dafiy gën a yàggaat il a hmm. eu le même déclic que Wad. Wad, il a Wad, Wad c'était un 23 juin 9 mois avant les élections de 2012. Hmm. la am le déclic Macky Sall il a eu le 1er juin encore aussi 9 mois et quelques jours avant. 2024. Très belle lecture. Donc voilà. Taïrou, merci beaucoup. Ah, merci à toi. Ah, man, que je voulais remercier parce que nous avons fait Dernier message, Bilal. Bon, message bi qu'est c'est le quoi moy Macky Sall déjà mou libérer prisonnier d'être prisonnier politique man dama koy ñaan madame Faisal madame Faisal wax ci. waaw waaw tata parce que aussi. je en de famille hmm. famille la del del del del del famille de mais prison yi on les a pas identifiés donc du coup ñoom en je pense que war les libérer détenus politiques yi. Mhm. libérer euh, ñi mu tamit bracelet parce que tamit amul njëriñ détenus, les détenus, day nit ñi sax julli day nit ñi jaamu amul amul ben njëriñ amul sens prisonnier politique amulul ben njëriñ président sérieusement légui y détenus, bi moy Sonko fagagal ko et tout na Sonko juste nit kese la. Mhm. mais lu mu wara jox ci respecté ko moy li nekk ci ginnaaw Sonko moy mbolo bi ne ci ginnaaw Sonko parce que président. yow sa mhm. interlocuteur c'est pas quelqu'un c'est les <laughs> c'est les gens parce que ba ngay ut rew manam mbolo nga dajale pour ñu fal la. Mhm. kon mëno tollu ba manam tey rew mi di xex par ben nit non non da ngay xol noy satisfaire manam mbolo bi. mbolo donc voilà te plus muy faagagal Sonko plus ay nit di roccee ko ci mom te li ma la wax ni du analyse probabilité la. Macky Sall mënul am troisième mandat Sénégal du analyse du dara xam nga élection 2012 exemple suñu génne won vote diaspora bi Macky Sall du du du du qualifié deuxième tour. Hmm. xamoon na dégg nga. waaw si si si je comprends 2012 bu doon dañu jël élection bi rek maanaam yemale ko ci biir Sénégal kese kese qu'est-ce? soit Tanor la wala Idriss Seck wala Niass la mais du Macky Sall. mais est-ce que fàtte la mais diaspora bi ño sas Macky Sall ci mu nek président Sénégal man j'étais là-bas. xam naa nu mu Ah bien sûr. léegi nga jóge ci ñi ko fal ñu ko faloon 2012. Mhm. lu tax ñu fal ko 2012 nag Ablaye Wade dafa waroon kàddoom sur deux mandats. Mhm. mu bëgg troisième mandat ñu ne ko dañ la fiy jëlee teg fi Macky Sall léegi ñu ci biir par stabilité ak liggéey bu Macky Sall di liggéey ñu ne nañ ko bàyyi mu liggéey ñu falaat ko 2019. Mhm. léegi nag ñooñu nag ñoom ñoo nar a rocceeku ci 2024 duñ ko fal. mais est-ce que tu es du consulat de du diaspora parce que comme il perd toujours là-bas toutes les élections qui se déroulent. non xam nga xam nga diaspora je suis man man man man diaspora pendant plus de 10 ans mais ce que xam ba xam c'est que diaspora yi une am lecture. politique. c'est des modèles démocratiques. ba pare ci xam c'est des anti modèles démocratiques moo tax diaspora bi à l'aise xam nañ lu baax xam nañ lu bon da ngay xool par exemple diaspora bi état Sénégal lan la defal diaspora bi dara sooy xool. Hmm. Macky Sall ba mu falo man bindoon naa benn lettre pour sax diaspora bi da ngay xool par exemple nit day gaañu ci diaspora bi état Sénégal du sax maanaam fexe représentant am dem ñu xool corps bi jël ko et soo ko defee rek su amee rek mooy dañoo daa am daa am ku xam néew bi ku xam néew bi xam ku nekk consulat ku xam consulat xam ku nekk ci ambassade bi état Sénégal diaspora bi dañu am ñoo xam dañu nekk dans des problèmes euh, maanaam euh, judiciaire en Europe yow mënoo sax euh, commettre benn avocat. pour mu hmm. représenter sa doom te yeneen dëkk dañ koy def. Hmm. am na yeneen dëkk yi comme par exemple lu mel ni ay Cameroun et tout même ba ci Gambie bi yaay jaamee bépp Gambien bu am na problème num mu Europe day fexe maanaam avocat bi day jóge ci ambassade bi dem défendre la gratuitement. c'est-à-dire li li li am diaspora moom loolu benn jour nañ ci toj. Hmm. <laughs> loolu man dund naa ko xam naa ko et tout mais lu ma leen expliquer mooy Macky Sall ba muy falu diaspora bi ñoo ko fal heure bi nii nag diaspora bi pare nañ ci moom. waaw c'est fini. ça moom voilà foofu moo xam quoi maa ngi <laughs> nuyu ñëpp di nuyu sénégalais yëpp et hmm. di ñaan yàlla yeesar yërmandeem at suturaam at kaaraangeem ci dëkk bi. Hmm. jéy yi am nag yàlla nañu ko yàlla jégal ko mu jégal ñu ko ñun ñëpp. de dañuy tegal lu bees tàq ci dëkk bi.

était était bi nga a ci une émission autour du micro di je sant di leen. Hmm? numéro mouvement parce que ay il y' a pas de tout le temps ci quoi. Voilà. ma koy je man mii sax na pour joindre ce mouvement bi ñu euh, joignable au 207 265 61 61. 265 61 61. c'est facile 265 61 61. très bien merci beaucoup Taïrou. donc man maa ngi rendez-vous avec benen Gantien, seen émission autour du micro Je ngeen jëf.